bu ñu ñëwee seen kër looloy firndee ne agent wu TNT by Excaf lañu lii lañ leen indiloon tey ci seen minute TNT di leen jox daje beneen yoon. léegoon amoon na fi ba mu amee yéen a waaw parce que maa fekkee woon kon nag naa leen nettali lu waral ma ne leen léeboon ki euh, benn waxtu ci bëccëg euh, jot na fi ci ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi mu ngi aju euh, ci njënd ak njaayum gerte gi ci gis-gisu fédération nationale bi ëmb opérateur yeeg ñi yëngat ci wàllu privé ak stockeur mooy na bëri na la ci ñuul sàkku nañ ci waa Sonacos ñu fay leen lañ leen ameel ci ay koppar ak yeneen ci ay ponk yi ñu jukki ci seen jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi daañu ko faramfàcce ci xibaar yi toll nañ war ñu ëpp téeméer ca ña woon ca Fastef am seen ko lijaasa la sàkku mooy na leen nguur

nañ leneen dina ci bokk muy ay ndongo yi gën a xarañ ca département bu Pikine ñu doon doon na sargal mairie bi euh, génnee ci lu tolloog juróom benn fukk ak juróom ñaar million jàppale leen ko waaye moom maire bi di Abdoulaye Timbo profité ci boobee tribune sàkku ci syndicaliste ak nguuru Sénégal ñu waxtaan ngir jàmm mën a delsi ci njàngom xen bi dañu ko fanfàcce ci xibaar yi mbokki ponk yangook topp leen ñu ñu yaatal ko mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci euh, digg bëccëg bi dañ koy dooree ak procès bu Khalifa Sall nga xamante ni ubbi nañ ko ay jamono yu ñu génn mu mel ni jamono ji la fësal rotal ko jamono ji ci ay information mooy ni kenn ci avocat yi muy maître El Diouf dafa mel ni dañu ko dàq ca audience bi ngir am ci lu ñu leer ñu ngi ci buumu jokko suñu ndaw di Codé Ndiaye Codé ginnaaw ba ma la nuyoo ndax da ngay dëggal boobee information mooy ni kii di maître El Diouf dañu ko ci audience bi. waaw Pape Ousmane euh, ni nga ko waxee daanaka mën nañu ko confirmer mais pour l' instant alors euh, médiation mi ngi daw mais lu lu mën a jàppal moom mooy maître El Hadj Diouf euh, xam nga ne dafa dafa waroon nekk avocat Khalifa Sall ci njëlbeenu procès bi waaye loolu tribunal dafa gàntaloon wax ne daal mënul défendre kii di Khalifa Sall par la suite mu ñëw nekk aboka mairie bu Dakar ci loolu nag dañ ñëw tey di plaider ngir na ay exception yoo xamante ne nii euh, défense ñoom ñoo ko soulevé woon bokk na ci exception yooyu annulation procédure bi waaye itam annulation procès verbal bi nga xamante ne nii euh, enquête de police bi wane woon na ko bi mu paree plaidoyer bi nag ci la président tribunal bi di Malick Lamotte jël kàddu bi xam ne ne daal moom euh, génn na ko définitivement ci ci ci affaire Khalifa Sall bi donc mënatul plaider ci ci ci procès bi parce que tout simplement warul amul droit euh, euh, défendre Khalifa Sall ci ay plaidoiries te tey euh, bi mu jëlee kàddu gi ñaar yëpp la wax ten bi moom mooy immunité parlementaire bi nga xamante ne nii dafa jàppale dañ ko salfaaje jëmee ci Khalifa Sall ak itam li nga xamante ne nii moom mooy procès verbal bi nga xamante ne nii police bi amal na ko ci njëlbeenu enquête bu Khalifa Sall xam nga ne ñaar yëpp moom daf ci xawoon a laale. Mm-hmm. tey nag mu ñëwoon ngir nee na pour leeral. bi mu baaxee leeral yi nag euh, président tribunal bi dafa te amul benn euh, droit boo xamante nii mu défendre mu ngoog léegi ginnaaw ginnaaw ginnaaw information boobu mooy nii kii di euh, maître El Hadj Diouf dañ ko génne ci audience bi ndax mën nañoo jàpp lan moo yees ci bisu tey bi jëm ci procès bi. loolu amul pratiquement dara lu bees ah. parce que hmm. tey bi ñu xëyee euh, parti moom moo moom moo def plaidoirie bi ñu paree El Hadj Diouf jël kàddu gi ngeen def moom itam ay ay ay observation hmm. à part loolu nag mais li mën a wax rek moom mooy médiation bi ki nga xamante ni moom mooy euh, batañu de l'ordre des avocats muy maître Mbaye Guèye hmm. fa Ousmane moo ñëw ngir jouer la médiation entre président bi ak maître El Hadj ba xam euh, na xam dafay dellusiwaat ci procès bi wala dafay jógee définitivement ci procès bi lu ci ci doon ñu ngi toog di xaar audience bi depuis une heure de temps déjà mi ngi mi ngi en mm-hmm. ba xam médiation boobu nan lay nan lay mujjee diggante El Hadj Diouf ak président bi maître Mbaye Guèye di di jiite ordre des avocats moom moo koy euh, diriger. Mm-hmm. actuellement ñu ngi ci biir di lëlu di waxtaan ci mbir moomu euh, xamuñ nag la nan lay mujjee pour l'instant ñu ngi toog di xaar euh, public bi avocat yi ak tribunal bi yëpp ñu ngi toog di xaar ci loolu. mu ngook ñu koy euh, jaajëfal moom Codé Ndiaye di kenn suñu ndaw teewal ñu jamono ci euh, ca palais de justice di ñu toppal procès bu xalifa Sall lay information bi ni ki tey mooy ni kii euh, di maître El a Diouf euh, dañu ko génn ci audience bi euh, dakkal taxawaayam comme avocat di layal kii di xalifa Sall daañu ci dikk yéen mu gën a yaatoo sunu xibaar yi ngooni lay doon ñu wax ci leneen maa lañ ko doon junj mooy campagne bi ñeel njënd ak njaayum gerte bi fédération nationale bi ëmb opérateur privé yeeg stockeurs yi ne bëri na ci ay ponk yu ca ñuul bëggoon nañu mu gën a demee neneen waaye te sàkku nañu ci waa Sonacos ñu am ñu jox leen lañu leen mel ci ay euh, koppar seen euh, ndaje ak euh, taskatu xibaar yi suñu ndaw di Pape Malick Fall ma nga fa woon. opérateur yi nekkee ci kuréel gi ñu duppee FENOPST daal di joxe seeni gis-gis ci ndorteelu campagne arachidière bi ginnaaw bi ñu ñëwee ci doxalinuk Sonacos ñoom ñi nga xam ne ñoo di opérateur yi sàkku nañ ci këru liggéeyukaay gu ni mel mu daal leen di fay seen i bor yi nga xam ne ñoom lañ leen yoreel. suñu diggante ak Sonacos ñoom wax dëgg fa yàlla. ñoom ñu ngi réceptionné liñ leen di wax rek moo di liñ leen di ñaax moo di ñu yokk seen cadence bi seen réception bi beneen bi moo di pay bi ñuy pay ba léegi tamit yéex na ñu ngi leen di ñaax pour ñu gën a yokk gaawaayu pay bi. ginnaaw Sonacos FENOPST daal di yëy yàbbi jëmale ci kër gi nga xam ne moo di la ñoom nag la ñu jàpp moo di jamono ji nanguwuñu liggéey ak benn opérateur.

ginnaaw COPEOL ak Sonacos waa FNAPST daal di wane it seen métit ci doxaliinu kër gi nga xam ni moo di waawoo ndax lañu jàpp moo di këru liggéeyukaay googee jamono ji résultat yi mu am moom dafa néew lool. waawoo moom moo di ne dafa commencé campagne waaye dafa yéex yéexaay bi foo ko takk ëpp na ko ndaxte mu ngi ci mille deux cent et quelques tonnes donc benn cam ñaari camion wala ñetti camion par bis. kàddu yi nag ñu ngi ko jibal ci bi ñu amal seen assemblée générale mu doonoon ab ndaje bu nga xam ne lëkkale woon na opérateurs yi nekkee ci zone centre bi jóge fu nekk moo xam Kaolack Kaffrine Fatick jurbel ak Tambacounda. Pape Malick Fall bu ñu jógee ca Kaolack ca mbuur la ñu jëm li nga xamante ni moo aju ci sàccum njur bi doon na lu leen sonal rawatina askan wa dëkkee ca gox bi di Mbuuroox di ab village nekk ca gox ba ñu ne ay bës yi rek daanaka lu tolloo ko fukk ci ay nag di race hollandais la ñu leen sàcc waral ba ñu yëkkati seen kàddu la ñu bëgg ci ay matukaay bokk na ci ñu gën a leeral gox bi ba mbirum sàcc boobee ñu mun ca mucc dañ ciy teewlu kàddu ñaax ci ñoom ci micro suñuy ndaw yu ñu teewal ca Mbour. bu nag bi bi ma wàccee midi ñëw ba yàgg boori ineer ma yegaat ci kaw terrasse bi yor nu gis nag yi ma ñëwaat wàccat bu ñu añee nag demaa raxasu rek yéeg ci kaw xool yeneen nag yi fii ci guy yi ma ne waaw xanaa nag beneen nag yi dañuy dem fale bi ma wàccee daw léegi nag topp tànkay topp tànkay ba tool yi mënuñ dugg foofu ñu tornewaat yeneen tool yi mënuñ dugg foofu dama topp leen boo gannaaw mborox tukloor léegi nag saw bi jaxasoo ak Nagi Ali foofu lañ ma riire ma daw ñëw ma ñëw ah, ah ah affaire amna na kii daal nag yi dem nañ ma yegg fas kii yegg fas ñu war ah dama yaakaar ne daal ñu ngi ci loxo parce que du nekkuloon ci loxo xanaa ñu gis leen fu ñu war yëpp. wax dëgg yàlla waa ñu ngi sàkku daal ci nguur gi ñu dimbali ñu jàppale ñu ci daal ci wàllu kaaraange daal waaw. ak courant beeg yëpp daal ñu soxla nañ ko trop ñu jàppale ñu ci. Ah, courant amuñ ci dëkk bi. déedéet amu fi salaire daal lañu am ñun courant amu fi. salaire lañ am soxla nañ torop pour ñu jàppale ci daal waaw ndax loolu day yokk kaaraange wax dëgg yàlla waaw daal dem gi daal métti na trop càcc jur gi fee bari trop bari na fi trop parce que séeréer yi sax ñoom keroog seen i xar yëpp lañ boobu da yóbbu lekk métti na fi daal wax dëgg yàlla daal bu ñu ci jàppaloon daal dinañ sant lool wax dëgg yàlla ñu ñu tàggat la ba noppi ci wàllu jàngale ñu am seen ko lijaasa la ñuy sàkk mooy jote ci ab ordre de mission ngir ñu mën a dem ci classe yi daal di jàngale loolee daanaka juróomi at a ñu coy topp benn genn wàll bi nguuru Sénégal mujj na leen jël geneen ja des ñoo wàcc mbedd bi wane seen naqar ne jot na ngir ñu jox leen seen i ordre de mission ne bañuñu sax ba taal seen bopp bu fekkee ni nguur gi taxawul ci saafara seen jafe-jafe yooyee ñu ànd ceeg suñu ndaw di El Hadj jàngalekat yi lee amee seen i lijaasa ca FASTEF sës la ñu def ba waral doxub ñaxtu bi nga xam ne amal nañu ko ngir wóolu kilifa yi ñu dugal leen ci système éducatif bi. instant bi dañuy taay mënuñu continuer si lii mënuñu continuer si ay négociation mënuñu continuer si ay daje si ak ay autorités yoo xamante ne du ñu respecté seen kaddu parce que avant tout ñoom lu ñuy wax dañ ko nar jëfe lu tax mënuñu wax lu mu mënuñu def mu mu mu mënuñu mu mënuñu matérialiser seen seen engagement loolu il faut mu dañ. benn mbëbët dong lañu am jot ci seeni ordre de mission jaare ko nak ci allée centenaire yi ñoom dox nañu nak liko dalé place de la nation ba rond point Doudou Ndiaye Coumba Rose teg ci di ñaawlu nak xàjjaleeg seen bi nga xamné ne nañu ko ci recrutement yi. dañuy recruter benn parti bay bàyyi beneen pàcc dafa melni Kumba am na ndey Kumba amul ndey alors que ñu yépp ci Sénégal lañu bok bo recruter bo nara recruter da nga nara a recruter parce que sénégalais lañu ay sénégalais lañu dañuy def suñu formation école daf ñuy daf ñuy soxla. ñom élèves professeurs yi la nak noppi nañu sax ngir jaay seen bakkan ba keroog nguur gi ñu janol di saafara seen bëgg-bëgg. président de la république na jël responsabilité am parce que sortant de la FASEF dañuy déterminer dañuy taxaw bare nañ lépp même s'il le faut dem si palais. dem dem dem dem taal seen bopp parce que pare nañ ko lii dafa dafa nar a doy. ñoom professeurs yi li nga xam ne nag FASTEF la ñu génnee ñu ngi bàyyi ko ci promotion 2012 2013 tey nag toll nañ ci ay téeméer yu ci jot seeni lijaasa te benn bëgg-bëgg dong yi yitteel leen mu di liggéeyal seenum réew. El Hadj Moussa jamono boobee ville bu Pikine mu ngi doon sargal ndongo yi gën a xarañ ci wàllu njàng ca gox boobee daanaka ñu jébbal leen ay cadeau lañ ci dugal ci ay koppar jol na toll na ci juróom fukk ak juróom-ñaari million ci taxawaayu maire bi di Abdoulaye Timbo mi profito ci boobee ndaje sàkku ci jàngalekat yi nguuru Sénégal ñu fexe ba waxtaan ngir jàmm mën a am ci njàngum ren bi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Wadianga Ibrahima la par rapport ak daaw nombre bi dañ ko ful ñaar daaw ñun ñu ngi amoon ñaar téeméer juróom fukk ci ay ndongo dara ren am nañ lu ëpp juróomi téeméer te juróomi téeméer yooyu dañu leen former ci neuf neuf mois te du doon centre bi rek mooy former mais quatorze centre Sénégal yëpp dinañ former voilà. donc je pense que su tendance boobu continuer Maintenant, am fek ñetti at ñenti at juróomi at vraiment déficit bobu ñuy wax ci jangale manam maanaam euh, bobu jangale jangale kat manqué su jeexul tit dinañ ko wañi bu baax a baax li tax mu ci impacté moy niveau buñ ñu leen di former bu leen di recruter d'abord, dañ dañu leen recruter non pas à part du BFM mais dañ leen recruter à part du bac te suma ma bac lool moy li ci gëna a am na ñoo xam ne dañuy am maîtrise am na ñoo xam ne dañuy am licence am na ñoo xam ne dañuy am même doctorat te bu ñu leen jëlee euh, euh, ci niveau bac boobu dañ leen distribuer loo benn test bu boo xam ne c'est très compliqué trois phases day am présélection am sélection am admission définitive donc ren su suma su jëlee exemple ren bi trente mille la ñu woon maanaam fanweeri junni euh, candidat la ñu woon mais ci cëppaandaw gi ñaari junni lañ ci jël ak juróomi téeméer. ñu ngi jégalu jot ngeen ko jubbanti seen bopp mu nekkoon professeur bi doon fësal. ne lu aju ci wàllu professeurs yi lañ ca jël daanaka doyut di sàkku ci nguur gi ngir mu taxaw ci ñu wax ci leneen muy ab marche boo xamante ne lañ ca jublu mooy xeex ngir jàmm mën a si ca Casamance ña ko taxaw di association Mandiak yi nga xamante ne ñoo nekk ca parcelle Assainies di ab ndaje boo xamante ne fësal na nan lañ ci fas yéene jaar ngir loolee mën a am ci teewaay suñu ndaw di euh, Ibrahima Fall. jàmm ca Casamance mu mel ni askanu Sénégal yépp la soxal rawatina ñu bàyyeekoo ca gox ba ndaw ñi ñoom bootu ci benn association nekk ay manjaak di ñaax kenn ku nekk mu dox jàmm ca région ba. amuñu doole parce que ñun population lañ mais tamit am nañ possibilité ñaan nguur gi. ak autorité moo xam autorité kilifa diine yi la moo xam ku mu mënta doon am nañ possibilité ñaan ñi nga xam ne ñu ngi jóg ci affaire bi nañ gën a dolli seen doo euh, seen seen loxo euh, gën a yokk seen seen liggéey parce que ñu ngi liggéey quand mais nañ gën a yokk seen liggéey pour que ci waxtaan bi waxtaan bu baax a baax trouver solution parce que lii kenn du ci gagné waaw kenn du ci gagné ñëppay perdant te ñun dañoo am benn terme bu ñuy wax ci njaago dañuy naan dañuy woote dañoo bëgg u caaku joob nguwaasa ngu jom sénégal karom maanaam euh, sénégal bu am jaam xel bu dal ak sénégal bu jëm kanam lii di développement muy koom-koom dafay ànd ak jàmm ndaw ñi ñoom lañu jàpp mooy ngir Casamance mën a suqaliku il faut que jàmm bi mën a dellu boo gisee nag problème bu xewul Casamance dafa bokk ci suñu euh, biir yi donc boo gisee loolu xam nga euh, ger bu amee ci dëkk wala crise bu amee ci dëkk c'est presque day freiné ne euh, xamante ne day am koom-koom ci réew mi donc koom-koom bu amul nag problème la pays bi du mun a dem kanam ndox moo tax ñu jël suñu tànk tey bu dox loolu ci jàmm ak salaam. kuréel bi boole manjaak yi nekkee ca Parcelles Assainies ñu ngay wéy di doxal seen jéego loolee yëpp ngir dox tànk jàmm ca Casamance. fii ba ba ñuy wéer ngànnaay yi loolu tax ñuy ñaax kenn ku ci nekk mën na bàyyi la mu jàpp ngir jàmm ci dëkk ba Ibrahima Fall jamono boobee ñiy xeex wàllu franc-maçonnerie ñoom it ña ngay yëglu la ñu bëgg mooy kilifa yi déglu leen te it jàpp nañu ñu faw ñu gën a ñaax ndaw ñi ci wàllu éducation delluwaat leen ci jikko yi ngir ñu mën a mucc eh, ci eh, xeetu feebar yooye ñu nemmeeku ci eh, jamono ji muy mbirum franc-maçonnerie ak yeneen yu mel ni moom collectif bi dippee seen bopp anti franc-maçonnerie ak mbirum góor jigéen ñoo ko fësal ci kanam suñu ndaw di leen a cuuna Euh, franc-maçon bëri fili ci Sénégal L'idée di kuréel gi ñu dippee collectif non à la franc-maçonnerie di ñaawlu li di tek tekkaaral autorité yi. ñoo ngi nakarlu ak di mettitlu tekkaaral gi nga xamni mbollem nit ñi yëngu ci walu politique bi moo xam ñi yor nguur gi la moo xam ñi nekk ci opposition bi te question yu mel nii di ay question de société te dégguñu kenn ko ci àddu te ñoo ngi leen di interpeller ñoom ñooñu kenn ku ci nekk wax ci lan moo ci sa position ku ci franc-maçon na ko wax ku ci bokkul nag ko toog wax ci ñoo ngi leen ci interpeller publiquement. gën a jàngal xale yi ak it sensibiliser loolu rek mooy matuwaay ngir mën a éliminer lii di franc-maçon fii ci Sénégal. bokk na ci lu am solo mooy fexe ba askan wi xam ñooñu ñoo ak lan lañ namm lan lañ bëgg loolu nag programme de sensibilisation la boo xam ne laajul gaawtu il va falloir que ñuy yenn nit ñi ci fànn boobu. fexe ba élaborer système éducatif boo xam ne danañ dëppoo ci ban sénégalais lañ bëgg ban sénégalais bi nu bëgg nan lañ bëgg mu mel nii ban xarañteef lañ bëgg mu am ko. lan lañ bëgg mu am ko ci ay jikko ak melokaan. loolu tax na lii di collectif bi di ñaawlu visitu artiste woykat américaine bi di Rihanna fas yéene ñëw fii ci Sénégal. le premier et le deux it am na conférence boo xam ne war na fi am fii ci Sénégal mu jëm ci la conférence internationale de reconstruction des fonds de partenariat pour l'éducation ak ambassade ambassadrice muy Rihanna nga xam ni kooku ana lan la am lu mu mën a proposer sénégalais yi ci wàllub yar ak tarbiya gën a ormal lii di valeur socioculturelle sénégalaise yi loolee mooy mbëbëtu kuréel gi ñu dippee collectif anti-franc-maçonnerie collectif boobu nag ñi ci bokk ñooma ñoo ngi ñaan nguur gi mu jël ay responsabilités ngir mën a xeex bu baax lii di franc-maçonnerie file ci Sénégal. leena cun ci wàllu woowe kii di imaam Mame Matar Gueye la mu jàpp mooy ni ngir ñu xeex ko faaw nguuru ko Sénégal jël ay responsabilité ndax jàpp na ni am na ay réew yoo xamante ni ñoo koy dooleel di ci xirtal doomu Sénégal yi ngir ñu dugg ca di leen jàppale ci ay xeetu bourse ya ca aju loolee yëkk ci ay kàddu ñu teewlu ko ñu ngi ñaan président Macky Sall na demander à deux ambassades nañu respecter la souveraineté du Sénégal mu di ambassade Hollande ak ambassade Canada ambassadu Canada la mu def ñu ngi koy dénoncé waat fii lan la leen wax yéen kuréelu góor jigéen ñi ñun ambassadu Canada dans le cadre du fonds canadien d'initiative locale ku ci indi projet ñu financé ko ambassade de Hollande daal di wax waa ONDH ne leen ñun am nañu un budget pour qu'on accepte de porter le plaidoyer pour que finalité légalisation de l'homosexualité nous daañu financer l'homme. c'est un signal fort et dangereux qui veut dire indirectement aux jeunes que ku facilité pour visa la facilité pour le financement boo nekkee que jigéen ci lay mu ngook uh, di kaddu Mame Matar Gueye uh, bokk ci ONG uh, Jamra doon artu sàkku ci nguurug Sénégal rawatina njiit li di la président Macky Sall mu jël ay responsabilité ci mbir moomee ñuy xeex jëm ci wàllu homosexualité ak it mbirum femme sonnerie xam ngeen ni njiitum réewum France di Emmanuel Macron ñu ngi koy xaar ci réew mi li ko dalee ñetti fan ci weeru février atum 2018 mu war a dem ca Saint-Louis ànd ak njiitum xew mi di le président Macky Sall lu ni mel indi nag ñàkk déggoo ci diggante membre ya nekk ci parti démocratique sénégalais ñu ciy joxoñ baram tuuma nga xamante ne mooy Ahmed Fall Baraya mi ñu jàpp ni dafa nangoo jiite li nga xamante ne mooy comité d'organisation te loolee bokkut li teg si parti bi wax moom Ahmed Fall Baraja indi ci ay tontu la mu fësal mooy ni dina maanaam itam euh, dalal njiitum xew mi dina ko teertu ca Saint-Louis leeral yeeg suñu ndaw di Gambi Diagne fii ci diwaanu Ndar nag Ahmed Fall Braya daal lañu ñu ñi ko toŋal mooy waa PDS ñu koy jiiñ naan ay mbiram dafa taq suuf ndax dafa ànd ak waa APR yi ñuy prépare ganale gi ñu war a ganale président Macky Sall ak président Macron fii ci diwaanu Ndar ñetti fan ci weer wii ñu dëgmal. assemblée générale dafa jàpp ni Nous xel mënul nangu frère Ahmed Fall Braya ñeneen ñu bokkul PDS fal président comité d'organisation pour mobiliser waa PDS pour accueillir pour président Macky comme loolu parti bi daf ko dàq moom parti nañu ko nañ ñu ko suspendral kii di Ahmed Fall Braye nag màtt ba dëgër génne teranga doomu ndar bi nga xam ni moom la ñu war a dalalee gan yi màgg yi nga xamee ni ñoo fi ñëw pour xool jafe-jafe waa ndar ba bu Macron ñëwee damay taxaw ci wetu notable gen ndar yi taxaw ci dignitaire u ndar yi ànd ak ñoom accueillir ko et chaleureusement serré ko la wax ko ni ko da nga ñëw pour sauver ñu boo ñëwee pour sauver ñu dama lay teeru man Ameth Fall loolu laa def. fii ci diwaanu Ndar nag ñu gis ni kon ku nekk fi mu nekk nii mi ngi waajal ñëw bi nga xamee ni ñoom ñaari président yooyu war nañu ko fi teewee kenn ku nekk ak ni nga ko Abdoulaye euh, ñu wax euh, ci leneen muy bind euh, bindkat di écrivain ñu gën ko xam ci turu Alpha Keita Diamanka moo génne ñaareelu li nga xam te mooy téeréem dippee jëf ci sa jëm jëf ngir yow maanaam agir pour soi en soi di ab œuvre philosophique boo xamante ni lam ca fësal bokk na ci nees mën a def ngir wër lay dëgg ca doomu aadama yi waaye rafetlu bëgg-bëgg nguuru Sénégal mu fas daal di taxawal leneen mooy ni lii di philosophie ñu koy jàngale euh, ci daara yu gën a digg dóom yi laataa ñoo yegg euh, ci li nga xamante ne mooy euh, terminal ñu ànd ceeg suñu ndaw Abdoulaye Wajangale wuyoo nit dafa war a xam boppam ak nu mu war a doxee ci biir société bi mooy tiituru téere bii nga xam ne kii di bindkat bi di Alpha te Diamanka bind na ko philosophe bi nag di wone nan la nit war a def ba mën a xam lii di dégg xalaat du benn façon rek nga koy xalaatee mais da ngay poser yeneen kii te loolu lañu jàngal fii. ci boobu la téere bindkat bi mu ngi ñëwaat ci ban place la imaam war a am ci société bi ba ñu mën a jël yoon bu baax. li ñuy wax yëpp daf koy peeg boo ko jàngee si addis yeex yooyu wax na ko ba pare mooy imaam boobu imaama boobu mu doon wax ba tax na kon retour bi foofu dafay daal di am solo. kat bi ak ay ñooñam ci boobu boobule cérémonie de dédicace dañoo yëkkati seen kàddu jëmale ko ci volonté bi nga xam ne moom la autorité sénégalaise yi am mooy dugal njàngum philosophie ci classe bu première ñoom gis nañu daal lu ni mel lu mën a nekk la waaye fokk nguur gi teg ci ay jéego. Bah, ñun fi tenté nañ expérience boobu mais à partir de la première parce que xam nañ ni que philosophie bi fay nek euh, lu jafé ci xalé yi donc bu ñu commencé première rek ñu commencé di len jox yenn yenn galgal yi na ko mën waxé ndax philosophie dafa bëri galgal. mbindum ay téere mu ngi mel nii farataaluñu ko ndax xarale yu yees yi waaye teewul bindkat yi ñoom ñoom ñu ngi gis ne dinañ wéy di bind ba ñuy sàkku sax nit ñi dem di jënd seen yooyu la Abdoulaye kii di xalif général njabootu Omarien bi ma nga woon ca ab Parcelles Assainies ni ki démb ca unité set moom nag la mu doon dalloo mooy euh, ziara annuel bi nga xamante ne dañ koy amal demale ko ci ki nga xamante ne mooy El Hadj Ousseynou Ba yàggoon na ànd njaboot gi bi lako njabotam mom El Hadj Ousseynou Ba di weyel bobé ziaré ci bobé ndaje waxtane nañ nais mën def ba jàmm mën sax dak ci Sénégal ak ci xolu doomu adama yi Mansour Sow ma nga foon حسا وعقلا جلية فلا الرين يستعلي ولا القسو يفجع الهاج محمد البشير تال di xalif général famille omarienne ñëw nag ci kër El Hadj Alfouseyni Ba El Haj El Fusseini Badi Ken est khalif général بوبولي la famille Omarienne Bobouli. خيو خيو بينك دجيك زيارة نويل بنو جغلل غورغو غولي زيار بينك موم تيرن اللو سيني موم موكو سوس واي دفكو سوس تيندقلو سرينيام دينا خمني موم مو في نك تاي ووتوكو سي غناوام اوفل bi ko sosee ak léegi nag yaakaar naa war na mot ñaar fukki at ak ñaar kon xaw na yàgg eh, bi mu ko sosee tamit eh, alhamdulilah li mu ko sosee yàlla la ak yonante bi Alfousseyni Ba di nituk jàmm nituk dialogue ba pare doon ku tolérant ba pare ubbeeku lool ci àdduna wërngal këpp loolu waral sax ba ci Parcelles Assainies gi nga na amal lii di ziara annuelam bi bariwul ñoo xamante ni xam nañ ko fii ndax wan ginnaaw gi nga xam lu jëm ci mbiru jamono. suufi loon boppam bëggul woon yii yëpp matériel yi yëpp moom mosu ko bëgg moo tax kenn xamu ko fii si biir waaye nitu yàlla piir la taalibe Cerno Bachiru piir la taalibe Cheikh Omar al Fouti yu taal piir la ci jamono joo xamante ni sax ci àdduna wërngal këpp bari na ay jafe-jafe yu ci am uwa googule sax moyul tey jii li nga xam ne mooy xew ci biir réew mi li te lu ci ëpp nag ndaw ñi leen ciy jëfandikoo loolu nag war na noo delluwaat rek tënku ci jàngaleek nit kooku léegi. gannaaw bi leen yàlla sàkke ngeen mu def si yéen xel amul leen war ngeen am seen fulla ak seen da ngeen war ni ngeen war a xam ni yàlla moo leen sàkk boole si yàlla li mu leen sàkkee it daf leen sàkkee ni ngeen xam fi ngeen di war a teg seen tànk ngir jaamu ko moom borom bi tabaraka wa taala lépp lu leen waaye woo ci li nga xam ni dafa tëggi siraatal mustaqim bañ leen lu tëggi siraatal mustaqim jàmm amu ci bile rek unité set bu Parcelles Assainies ne nag nekkoon na sëlbe yoon taalibe tijaan yu bare bari yu bàyyi ko ci gox yu wute ci biir réew mi ñu delluwaat rek fàttaliku ci El Hadji Alfousseyni baa ci fàttali rek moom mi ngi làqu ci juróom-ñeenti fan ci weeru août ci atum Mansour Sow ginnaaw boobee ziara beneen journée scientifique ñu jagleel ko ki nga xamante ni mooy Mame Makhtar Kala Dramé bokkoon ku ràññeeku lool juddu ca Saloum ñi nga bi mu judd bi mu làkko ñi nga xamante ni mooy association bi ëmb ay sëtam ak boroom xam-xam ñoo ko delloo njukkal fàttaliku dundam ak jàngalem bokkoon nag ñi nga xamante ni ñoo njëkk samp daara fii ci Sénégal war naa jege wala mu ëpp ñetti siècle dañ ci teewlu kàddu docteur Jim Ousmane Dramé ak. Abi euh, bu euh, Dramé euh, ci micro suñu daw ñëpp ñu àndandoo waxtaan ci dund kii nga xam ne lu bëri la def juddu 1790 ba dund ba 1874 li mu def ci Sénégal ci wàllu yar ci wàllu jàngale ci wàllu xam-xam moom moom dundam yëpp def ko def ci wàllu jàng ak jàngale dafa dem ba Mbakol bàyyi ko Saloum ba Mbakol mu jàngi fa ñibbisi soñ ci daaraam wax nañ ne alxuraan tafsir nekkul mat juróom-ñaar fukki yoon donc 70 ans chaque année mu tafsir alquran xam nga loolu loolu tuutiwul loolu moo tax nag liggéey boobu li ko def ñu fas yéene nit ñi xam ne amoon nañ kenn ci sëriñ daara yi mhm. koo xam ne xam ko mhm. dina tax nit ñi gën a xam ne am nañ ay valeur am nañ ay modèle mhm. boo géegee ñoo xam ne ko ndax àddina daraay àddina da ko ñoruloon da ko saf da ko soxlu loon alxuraan ci la nekk ba xëy jógee fi li mu fi defee quatre-vingt-quatre ans yëpp ci mission islamique ki la nekk kon jot na ñu defal ko ni ñu ko defaloon journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba journée culturelle Alaaji Malick Sy journée culturelle Alaaji Abdoulaye Niass et cetera et cetera mu nga ko di ab journée scientifique euh, ñu jagleel ko ki nga xamante ne mooy Mame Makhtar Kala Dramé ci taxawaayam ca dundam ak lu mu fësal jëm ci wàllu xam-xam kii di Modou Mbacké ñaa jégalu na jox na leen dig daje lu aju ci wàllu yëglekaay ni ki ëllëg bu soobee suñu borom mu doonoon ponk bi mujj euh, ci xibaar yi ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi di ci jaajëfal techniciens yi ci àndoon xibaar yi ngoon lay dikkaat juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen di ngoonu ko jàmm bu ànd ak taw feex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk والسلام بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله « La ilaha illa ant allahu akbar alhamdulillah Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Pionnier de l'audiovisuel au Sénégal, le groupe Escaf Télécom est plus que jamais déterminé à mener le projet télévision numérique terrestre à bon port.